yi tey ma wax la ñu nga bokk nekk baay mbokk yaayam si moom bekk mu jagaa di France andi ko ci cimetière bi ci Yoff ci néegul ko suul yaaya mari lay jooy yaay rokkee sama jéel a reer mbokk yaay mbaa Bakar Mbeng lay jooy maam maam ku jël laa bokkal yaay di di laa bokkal yaay Maguette Mbengue la mu ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam waaw di rafetlu bu baax a baax ne di rafetlu bu baax a baax lii nga xam ne ouvrage bu ñu réceptionné mais boo leen gisee lii am tey. mais boo leen gisee lii am tey. dafa nekk. dafa nekk. fruit consultation. fruit consultation. boo xamante ne. boo xamante ne. musul dak. musul dak. diggante population yi. diggante population yi. ak municipalité. ak municipalité. bu ma nee population yi. mais bu ma nee population yi. mooy association yi. mooy association yi. bàyyiwuñu kenn. bàyyiwuñu kenn. muy conseil de quartier. muy conseil de di délégué de quartier. di délégué de quartier. di bàjjenu gox. gox. seen. di ñëpp. boo leen seetloo tuuti. ne boo leen seetloo tuuti. fii ñu taxaw bàyyiwuñ ci xel. fii taxaw bàyyiwuñ ci xel. waaye biñ fi egsee ba léegi. waaye biñ fi egsee ba léegi. war na mat 100 oto. war na mat 100 oto. yoo xamante ne ñu ngi. yoo xam ne ñu ngi romb. te gis ngeen mu ngi continuer. gis ngeen mu ngi continuer. lii dafay wone lii dafay wane nii. solo projet bi. solo projet bi. parce que maris ne Maristes. dafa nekk. dafa nekk. quartier bu enclavé. quartier bu enclavé. enclavement boobu nag. enclavement boobu nag. lii. lii. mën naa ne solution la. man naa ne solution la ci. mais. mais dama kii di délégué Aliou Diakhaté. dama naan kii di délégué Aliou Diakhaté. dama naan kii c'est le grand combattant des Maristes. nee kii c'est le grand combattant des Maristes. bu ñu nee Aliou Dialé. bu ñu nee Aliou Diakhaté. grand combattant des Maristes. grand combattant des Maristes. lu ñuy faral di wax. dafa am lu ñuy faral di wax. Diakhaté Joxaane. Diakhaté Joxaane. Joxaane ngi nii nekk. Joxaane ngi nii Joxaane Aliou donc am na lu bari loo xamante ne. am na lu bari loo xam ni. bu ñu nee histoire Maristes. bu ñu nee histoire Maristes. am na les premiers occupants. am na jaar jaar bi. difficulté yi. difficulté yi. du ma wax li nga xam ne lu baax la. du ma wax li nga xam ne lu baax la. parce que état. ndax état. comme mairie comme mairie. dañ fi war a nekk apporter des solutions. dañ fi mën a nekk apporter solution. difficulté ak difficulté. mais liy dox. mais liy dox. kenn du ko wax kenn du ko wax. mais. mais damay féliciter. day féliciter. jaxate. Euh, jaxate. di réitérer. di réitérer. sunu taxawaay ci seen i wet. ci population yëpp. ci population yëpp. ci bàjjenu gox yi. ci bàjjenu gox yi. di rafetlu taxawaay yi. di rafetlu taxawaay yi. Omar Joxaane. Omar Joxaane. conseil municipal. conseil municipal. nekk euh, identité remarque. nekk identité remarque fii. nekk président de commission. nekk président commission. nga xam ne jamono ji ñu toll. bi nga xam ne jamono ji ñu toll. lu jëm ci wàllu planification. lu jëm ci wàllu planification commune Hann Bel-Air. waxuma la Maris. waxuma la Maris. ci la nekk di liggéey. ne ci la ne di liggéey. ci wàllu commission. ci wàllu commission. muy liggéey bu muy def. bénévolement ku nekk ak la mu mën ku nekk ak la mu mën expertise bi ko moo tax ma ne ko grand éli nga dañ la fal niñ ma fale dañ la fal niñ ma fale demal nga jàpp ci mu accepté ko kii di Ablaye Ngom ne kii di Ablaye Ngom ingénieur la ingénieur la délégué de quartier la délégué de quartier la hasard amul hasard amul dafa mel ni agent agent municipal. dafa mel ni agent voyer. dafa mel ni agent voyer. dafa mel ni en tout cas service technique la. dafa mel ni service technique la ne. lépp luy malfaçon bu. lépp luy malfaçon bu mu relevé. dama ciy yëgoo ak moom. dama ciy yëgoo ak moom. donc loolu. ne loolu. mën naa ne aussi résultat yi. mën naa ne aussi résultat la. loolu weesoo. mais bu loolu weesoo. dafa am ñoo xamante ne. daa am ñoo xam ni. lii ku ko xool. lii ku ko xool. xam ne jógewul ci poste maire. xam ne jógewul ci poste maire. mais dafa jógee. mais dafa jógee. ci budget conseil municipal. ci budget conseil municipal. bu ñu nee conseil municipal. ay commission. daam ba pare daal di am. li nga xam ne mooy bureau municipal. ñi fi teewal tey. ñi fi teewal tey bureau municipal. dafa baax ma seede ko. dafa baax ma seede ko. man dama jiitu rek. man dama jiitu rek. gën a fees. gën a fees. mais kii di Matar Diaw. mais kii di premier adjoint di Matar Diaw. kii di Altiné. kii di troisième adjoint di Altiné Diaw. nekk adjoint. lépp lu ñuy proposé. lépp lu ñuy proposé conseil municipal. ci biir bureau municipal. ak Mously Diakhaté. ñoom la ñuy waxtaanal. buñ ko validé. buñ ko validé. présenté ko éli yi. éli yi nag. nañu toog. mën nañu toog. daan na ñun d' accord ñu ci. waaye keroog ba ñuy voté tali. waaye keroog ba ñuy voté tali dama gis élu maristes dama gis élu maristes yi. dañoo jóg taxaw. la. daan na lii solution la. waaye nag damay leeral tamit. waaye day leeral it. parce que am na lu tuuti lu ñu xam. ndax am na lu tuuti lu ñu xam. ci biir quartier yi. tey. ne tey. tali bi defar nañ ko. tali bi defar nañ ko. début de solution la. début de solution la. saafara wu ñu lépp. am na wax léegi. am na lu délégué wax léegi. am na pàcc boo xamante ne. am na pàcc boo xam ni. dafa nekk. dafa nekk. responsabilité AGEROUTE. responsabilité AGEROUTE. maam pàcc boo xam. maam pàcc boo xam ni. pàcc commune la. pàcc commune la. ci wàllu commune. ci wàllu commune. daanu ci béy suñu waar. daanu ci béy suñu waar. waaye képp ku fi dëkk fii. waaye képp ku fi dëkk Maris. xam nga ne sortie bi nekk Cambérène. xam nga ne sortie bi nekk Cambérène. problème la problème la. mën naa ne loolu. mën naa ne loolu. dafa bokk. dafa bokk ci suñu procès procès. parce que délégué wax na ko. ne délégué wax na ko. Ablaye Ngom wax ko. Ablaye Ngom wax ko. ñu discuter discuter ci. ñu discuter ci. mari sa sorte bi dafa. mari sorte bi a loolu. waxtaanu élu la. waxtaanu élu la. waxtaanu conseil la. procédure te dafa beneen bi aussi. bu baax. ñu ngi travaillé bu baax. ak Ageroute. ñu ngi jokkoo ñoom. ñu ngi jokkoo ñoom. ci li nga xam ne moom la ñu jàpp. ci li nga xam ne moom la ñu jàpp. li nga xam ne mooy programme. li nga xam ne mooy programme. waaw. Cambérène. Cambérène. comme euh, école japonaise. bi. gis nañ état bi mu toll. loolu yëpp dafay nekk loo a wax tey li ma mën a wax tey. ci tënk rek ci tënk rek. mooy euh, li may wax mooy problème yi bari nañ. wax mooy problème yi bari na. dafa am lu mu jot a wax. délégué daa te dama bëgg ñu bàyyi ci xel. bu baax. boo leen gisee am na benn espace bu mag. boo leen gisee benn espace bu mag. boo génnee espace résidence. boo génnee espace résidence. man dama jàpp ne. man dama jàpp ni. de Maris. l'avenir de Maris. la war war a doon foofu la war a lépp luy équipement. lépp ñu soxla bu fa mën li wax mairie. li ñuy wax mairie. vocation vocation. mooy service public. mooy service public. de proximité de proximité. boo leen état civil. boo leen ngeen ngeen génn. boo leen bëggee gendarmerie ngeen ngeen génn. boo poste de santé. santé. santé moo santé santé moo fi nekk. war ne fii. li wax espace équipement sportif. jardin public muy jardin public. lieu de culte lieu de culte. loolu yëpp dafay bokk loolu yëpp day loo xamante ni bii. dañ ci war a ànd. a pour mu mën a antu mais fi muy jeexale kàddoom mooy mooy la cohésion. la cohésion. la nga xam ne. la nga xam ni mooy intelligence. mooy intelligence. maanaam liggéeyu équipe. maanaam liggéeyu équipe. ñun dañu nekk mairie. ñun dañu ne mairie. damay faral di wax ne man Babacar. day faral di wax ni moom monsieur le maire Babacar nekk lu ma fi maris. nekk lu fi fi yaraax. nekk lu ma fi yaraax. nekk lu ma fi zone Idriss maire commune Hann Bel-Air la dañuy intégré lépp ne dañuy intégré lépp am na lu leen jot a wax tuuti am na lu leen jot wax ci plan de développement ci plan de développement waxuñu plan développement communal bu Yarax ne ñu wax rek pour Yarax jëm ca kanam waxuma loolu dama ne commune Hann Bel-Air kanam ne commune Hann Bel-Air ca kanam mu leer pour mu leer plan de développement communal boobu plan de développement communal boobu ay atelier dafa may atelier xamante ne boo leen seetloo yoo xam ne boo leen seetloo dajale ay responsable ñu ngi dajale ay responsable dugg nañ biir maris dugg nañ biir maris dugg nañ maris 1 dugg nañ maris 1 maris 2 dugg nañu biir yaraax dugg nañu biir yaraax biir an village dugg nañ biir an village loolu yëpp pour déglu pour déglu pour xam population yi pour xam population yi lañ lañ bëgg ba ISRA marinage ba ISRA buñ leen dégloo ci tënk am na loo xamante ni ñun peut-être peut-être administrateur de crédit lañ. mais ku ci nekk. mais ku ci ne. ca xam-xamam ca xam-xamam. war a liggéeyee. na mu ko war a liggéeyee. koy présenté si lañ ñu koy présenté. ñu validé ko. mu war a mën a nekk carte visite. mu war a mën a carte visite. an Bel Air. délégué Jaxate. délégué Jaxate. am benn opportunité. am benn opportunité. bu jëlee kayit ko mu présenté ko. partenaire bi. la nga xam ne moom la ñu soxla. dana xam li ñu soxla. commune bi toll na foo. ne commune bi toll na foo xam ni. espace yi nga xam ne. espace xam ni. bi nga présidence bi moom. mooy bande bande dawsu. mooy bande dawsu. noonu la ko délégué. noonu la ko délégué tuddee. waaw gis nga bande dawsu boobu. ne bande dawsu boobu. da koy leeral. gis ngeen booru quai de pêche Yaraax. booru quai de pêche Yaraax. pour am fa équipement sportif. pour am fa équipement sportif. dañoo jënd ñaari kër. dañoo jënd ñaari kër. lii. lii il faut pas que mu rëcc ñu. il faut pas que mu rëcc ñu. bu nu bëggee équipement. di investir di dem di investir. parce que fële. fële. quartier la bu am 100 ans. quartier la bu am 100 ans. habitude ak habitude. mais fii. mais fii kenn dëkkagu fi. li ñu mën tey li ñu mën tey. bëgguñu mu rëcc bëgguñu mu rëcc ci tënk daal ci tënk daal. day félicité. tout en Bel Air. tout en Bel Air. bi bi. fii la nekk. fii la ne. mais day desservir zone yu bari. mais ne day dimbali zone yu bari. man mii dëkk Yarax sax. man mii dana ma gën a. man ku fiy jógee. képp ku fiy jógee. war a aussi. Matar Diaw bu waree dem waalo. naa ne fii lay jaar fii lay jaar. en tout cas euh, li ma bëggoon jeexal mooy. Cheikh Awa ne pharmacie Touba. damay euh, remercier docteur Awa Diong. ne day remercier Cheikh Awa Diong mi toog. ndax docteur docteur Awa Diong. docteur Awa Diong. muy moom. di association famille. di association famille ñu àndal yëpp. si Mbacke. soxna si Mame Diarra ñu ngi leen di sant bu baax Balaye Sa. gis nañ seen taxawaay gis nañ seen ñaan. tali ay borom xam-xam. ay borom xam-xam. ay nit yu set set wecc ñëw nañu fi baas nañu fi tant nañu fi te bu ñu dellu see xool ko danañ xam ne dëkk bi nañu continuer ci yoon boobu en tout cas ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp les élus les élus conseil municipal agent yi agent yi remercier l'entreprise remercier entreprise bi nag c'est important entreprise bi jërëjëf international gis nañu réalisation yi gis nañu surtout gis nañu surtout bi ñuy liggéey méthode bi ngeen di liggéeyee. dafa am loo xamante ne. dafa am loo xam ni. gën a jafe. li gën a jafe. le respect des délais. mooy le respect des délais. nga war a liggéey. nga war a liggéey. nga ne dinaa ko def ci diiru. nga ne dinaa ko def ci diiru trois mois. nga def ko ci délai booba. ci biir liggéey bi. ci biir liggéey bi. ñu ne la. ñu ne la. bu doon suñu sago. bu doon suñu sago. dinañ ci boole waa dëkk bi. waa dëkk bi jàpp ci. ne wax dëgg yàlla. amuñu leneen lu ñu ñëw. képp ku fi teew. ñu ngi leen di gërëm. di leen sant. di faral di remercier. di faral di remercier suuf su. nga xam ne ce sont nos partenaires partenaire ñi nga xam ne ñooy sunu partenaire wal fajiri am na wal fajiri am na RFM am na RFM am na mais man dama naan mais man dama naan en TV ak Mak TV ak Mak TV merci beaucoup dañoo nekk nekk ñaari chaîne locale lépp luy xew ci commune lépp luy xew ci commune bi ko wane danañ ko wane donc loolu loolu à l'aise pour le dire nee dina wax pour wax ñoom ñoo may a may wane léeg-léeg wane sama gars yi dama ñi àndu ñoo sama gars yi dama ñi àndu ñoo dëgg bi dëgg la wax rek loolu dañ jërëjëf jërë ngeen jëf mu ngi leen di remercier di leen sant jërëjëf délégué donc euh, di ñaan yàlla di ñaan yàlla tali bi mu am utilité délégué félicitation délégué félicitation ah ñu ñaan bala ñu euh, suñu bëggee jàngi ñu jàng suñu bëggee jàngi jàngi suñu bëggee topp seen diine suñu bëggee topp seen diine topp ko xale yi mën a gérer seen espoir également seen activité jigéen yi mën a yegg seen activité loolu ne loolu rëy rëy yu rëy rëy la yu xajul fii ñu ko bokk ak maire di ko partagé ñu ngi ci te am nañu yaakaar ni ci gis nu ndaw dana tombe yàlla na ko yàlla def ñun ñëpp ñu fekke ko jërëjëf jërëjëf jaxate joxare Ali Diour waaw exactement waaw parce que tey ne tey c'est vrai que li ñu def nii ne c'est vrai que li ñu def option technique. mooy liggéey bi. mooy liggéey bi. sumb nañu ko. mois de janvier. mois de janvier. defar nañ ko ci délai yi. defar nañ ko ci délai yi. respecté ay normes. respecté ay normes. Euh, Ablaye Ngom mii. Alaaji Ablaye Ngom mii. ingénieur la ci génie moom ingénieur la. Euh, Amady Diallo moom mooy secretaire général. Amady Diallo mooy secrétaire général. de résident bu collecteur résidence. ingénieur des mines la. man nag. nee man nag. man ouvrier bu ndaw rek laa ci. man ouvrier bu ndaw laa ci télécommunication. li may liggéey c'est li may liggéey eh eh. waaw ak les mines. ak les mines. waaw. Eh, mu ma xarala. nee ma nawlu seen i xarala. nii li ñu def nii. biñ ko commencé ba mu yegg si nii. biñ ko commencé ba mu yegg si. may xel. doon nañ ci may xel. xool di ko xool. ak si ci tey nii. ba yegg si ci tey. ni dinañ jox premier. kon ñu ngi jox Ablaye Ngom. yeggali dinañ ci dellu sax pour yeggali finition yi Alaaji Ablaay salaamaaleykum mbooloo mi mbokk yi Alaaji Ablaay ne salaamaaleykum mbooloo mi wax ji presque frenkulaayu na ne wax ji presque frenkulaayu na ñu waroon a gërëm gërëm nañu ne ñu waroon a gërëm gërëm nañu waaye dañu maa sas waaye dañu maa sas wax loo ma wax loo ma ci liggéey bi ci liggéey bi liggéey bi nag liggéey bi nag dox bi ñu dox dox bi ñu dox ak niñ ko doxee ak niñ ko doxee camion bi jiitu camion bi jiitu jàll jàll ñu topp ko ñu topp ko ko. am na lu mu firndeel. am na lu mu firndeel. lim firnde mooy. liggéey bi liggéey bi. jaar na yoon. jaar na yoon. attan na camion. na camion. beneen bi ëpp maanaam mooy. beneen bi ëpp maanaam mooy. am na ay doodaan. am na ay doodaan. yi xool nañ ko. doodaan yi xool nañ ko. camion yi jaar nañ ci. camion yi jaar nañ ci. sans problème. sans problème. kon nit kon nit ñi. ñu ngi en sécurité. ñu ngi en sécurité. kon am na maanaam. kon loolu am na maanaam. sécurité liggéey bi. sécurité liggéey bi. pour mu baax. pour mu baax. sécurité nit sécurité nit ñi. kon loolu. kon loolu. ñu gërëm. ñu ngi ciy gërëm. di ci félicité. di ci félicité. entreprise bi. entreprise bi. parce que monsieur le maire monsieur le maire. dana ci ñëw dana ci ñëw. te loolu. te loolu. nee sama kolo jaxate ni mu ko waxee. liggéey bi. liggéey bi. njëkkewul fii. njëkkewul fii. tàmbali na jamaris. tàmbali na jamaris. ca booru jumaa ji. ca booru jumaa ja. te am nañu yaakaar ni. te am nañu yaakaar ni. monsieur le maire. monsieur le maire. da koy continuer. da koy continuer. parce que euh, maris. nee maris. seen problème. seen problème. assainissement la. assainissement la. loo xam ne nag. am na loo xam ne nag. mairie boo ko géré. mairie moo ko géré. loo xam ni. ak loo xam ni. mairie bi géré wu ko. mairie bi géré wu ko. moo ko a Azerut moo ko géré. bu ñu takkoo. mais bu ñu takkoo. ànd ak maire bi ànd ak monsieur le maire. di xeex di xeex. comme toolu mu ko waxee. ouvrage bi ñu bëgg ci Maris. ouvrage ko am. nee dinañ ko am. loolu laa ci bëggoon seede. seede. la di wax ci technique. bi nga xam ni. bi nga xam ni. am na ci. am na ci. ouvrage bi baax na. ouvrage bi baax na. dëgër na dëgër na. am nay doodaan. doodaan. am na sécurité. am